question euh, Macky Sall il va passer la main en 2024 après 12 ans à la tête du pays alors il sort très bien il sort bien passablement bien pas très bien une note non moi il y un aspect sur lequel je suis satisfait hmm. qu'il n'ait pas fait le forcing pour un troisième mandat sur cet aspect. en ah, ma ne Macky Sall am na loo xam ni ànd naa ceeg moom mooy bi mu nee du def troisième mandat. Mhm. ndax bu fekkee ni dafa bëgg ni am naa doole nguur gi ba nga xam ni mën naa def sama troisième mandat nekk noo xam ni mën na tas réew mi mënoon na tas réew mi. sa loolu baaxul woon ci réew mi kon nag bu retiré woo nii duma def troisième mandat war nañ wax ni lu baax la li ko tax retire look yooyu yëpp duma dugg ci boobu discussion par exemple moo ko bëgg retiré mbaa dañ ko ko imposer ak yooyu dugguma ci loolu man fee bi ci boppam mooy nekk fee bu baax pour réew mi parce que réew mi lay xalaat ndax bu forcé woon dina indi leneen ci réew mi léegi nag li ci des mii sunu kanam. c'est-à-dire. ah xamaguñu fu ñu jëm ba léegi. ah kii bi horizon bi leerul. xamuñu fu ñu jëm. xamuñu fu ñu jëm ndax moom ci boppam Benno Bokk Yaakaar nee na ko wutal ñu candidat. génneegul candidat ba léegi ñu ngi waroon commencer def parrainage ñu ne nañ ko daax. non c'est c'est l'entrée en vigueur de la nouvelle loi moom moo tax ñu repousser ko d'un mois. waaw ma ne <laughs> loolu sa explication. non c'est pas mon explication. waaw man euh, sama explication. Uh-huh. ñoom ñoo parewul ñoom ñoo pareegul. waaw loolu mooy. sama parce yi waroon na commencer le 28 août. waaw waaw man loolu mooy sama explication. que ñoom ñoo pareegul c'est ce ñoom ñoo pareegul ñoom ñoo pareegul noo tax ñu dàq parrainage bi man loolu mooy sama explication donc ba léegi ñoom xamaguñu fu ñu jëm yokk ci maintenant opposition bi candidat. bi nga xam ni si moom lañ yaakaaroon ni mën na gañi tënk nañu ko waaw donc ñaari affaire yi yoo xam ni indi na incertitude ci avenir bi donc élection 2024 yow wóorul ndax dina am xaw ma ndax dina am ak du am mais li ma wóor mooy acte ñuy posé mi ngi indi ay incertitude loolu moom ma wóor